le président de la république jël dogal conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes mais may a lu l'Assemblée nationale saafarawul le conseil économique social et environnemental saafarawul li HCCT saafarawul li commission nationale du dialogue des territoires le li haut conseil du dialogue social qui ak yeneen courel aussi budgétivore que inutile pas... ndax une énième institution Mon président de la république Macky Sall commission nationale pour L'insertion et l'emploi des jeunes ndax dina ko muy ben. xam ngeen ne lii ay tapalé. la xam ngeen ne lii du dara lu que naka la une clientèle politique Diko ko jox suñu xaalis ñoom ñuy noos ñun ñuy ministère de l'Environnement, vous mi nga recruter les sortants de Djibélor lu mu gis ñun la Sénélec mi nga nous avons recruté recruter chauffeurs recruter ces dom, recruter et les citoyens sénégalais méritants ñu bàyyi Nous mu kumba am ndey ak kumba amul ndey Senelec bu ne gouvernement du Sénégal comme nous ngi remaniement 100 ah, jours du gouvernement de Macky Sall Dimot, ministre bu ne convoquer collectif yi waxtaan ak ñom trouver un accord bo xamné dina baax ci état du Sénégal dina baax itam ci collectif yi nga xamné ils sont victimes de spoliation foncière ils sont victimes de violation du droit des travailleurs collectif yi nga xamné waaw étudiants yi dañ leen ñakal fayda muy étudiants orientés dans le privé yi nga xamné ak étudiants UVS yi nga xamné dafa melni ce sont des étudiants entièrement à part et non des étudiants à part entière Waye itam suñu dëkk yi nga xamné ne mësuñu am courant suñu dëkk yi nga xamné depuis colonisation mënuñu am ay infrastructures routières dignes de ce nom yu melni ay Baba Garage yu melni ay pakaw ak ñom sen. fokk gouvernement du Sénégal jël xaalis bi fi nga xamné mu ngi koy amul solo dugal ko ci yité askan wi. duñu nangu nak la démocratie sénégalaise Teki. waaw.

fii la ñuy dem ci bépp entreprise ci bépp ministère boo xam ne war nga régler suñu problème te ba tey jii nga ne ci tekk nga ne ci méng te loolu du dëgg du yoon te dinañ ko digaale ak yéen ci nii wala ci ci nii wala ci naa ndaxte du dëgg du yoon. lépp ngi si kanam ne ñu continuer góorgóorlu ba nga xam ne bu subaa ñu bokk si ñuy téen waa ñu bokk si ñuy sëgg ñuy gàcce jëf mooy nattukaayu góor.